jërëgeen jëf euh, mbokki euh, téléspectateurs yi bàyyi xel seen télévision Lamp Fall TV ñu ngi ci Touba Mbacké ci wàccaayu màggal gi dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ ko jagleel di atum 1442 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mbokki tey ji xibaar yi dañ koy door rek euh, ci ajuma ji ki nga xam ne moom moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi ak lool te ànd ak wér ni nga xam ne noonu la koy defee ajuma ju nekk mu ñëw ci euh, jumaa Tuubaa ji ngir euh, julle fi ajuma def na ko ci ajuma ji euh, mbooloom takk lool ñëw ànd ak moom daal di ñëw teewee julli gi mu nekk ay taalibe yu bëree bëri yoo xam ne ñi tàmbale nañoo màggal si profité ngir teewee li nga xam ne moom moo di julli jullig ajuma gi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou nag ginnaaw julli googu ñëw na fi nga xam ne moom moo di ci résidence Xaadim Rasul bi nga xam ne moo jàkkaarloog jumaa ji ndax jamono yëpp mu nga woon ca Daarul Minnan fa nga xam ne fa la doon recevoir ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, kilifa yi fii ñëw waaye ci ajuma ji sëriñ bi ñëw na fi nga xam ne moom moo di ci résidence Xaadimu Rasuul ginnaaw bu ñu jullee ba noppi gis ngeen mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom ñëpp rek di santaat bu baax sëriñ Touba ànd ak mbégte ci euh, ki nga xam ne moo di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru mbokki ba léegi ci ajuma ji la ñuy des sax ndax ki nga xam ne moo di euh, jëwriñ ji denk dénk biir réew di Aly Ngouille Ndiaye ginnaaw bi mu fi ñëwee fan yee dellusiwaat na fi ci lu amul protocole ñëw fi nee na en tant que talibé euh, bu seet si woon sëriñam moom Aliou Ngouille Ndiaye ñëw nemmeeku si ki nga xam ne moom moo di euh, sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ziyaare ko waaye rafetluwaat bu baax a baax taxawaayam jëmee ci réew mi waaye ni nga xam ne noonu lay taxawoo président de la république Macky Sall ñu ànd teewlu kàddu yi euh, Aliou Ngouille Ndiaye di jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk wàllum intérieur. dañuy ñëw ziyaare sëñ ci comme ni nga ko waxee rek ñu ngi waajal màggal gi euh, ni ñu ko daan defee rek at mu nekk ñëw euh, en door de tout protocole ñëw ziare suñu suñu sëriñ suñu wayjur Euh, ñaanal ko également ci bés bi nga xam ne bii tey moo moo moo ko jiite yàlla may ko ci ndam euh, ci bésu sëriñ Touba yi kon loolu rek moo doon moo doon tànki tey ñam ci mbégte lool ànd ak suñu xarit yeeg mbokk yeeg am di jàmm yi. waaw ah, loolu moom comme ni ko président waxee woon rek gannaaw sëñ bi moom yàlla moo ko booleeg président euh, te wax dëgg yàlla kenn ku ne gis na ni ko sëriñ bi jàppee. Euh, donc lépp lu ko président def rek defar it wax dëgg yàlla xam naa ne lu mu koy delloo rek ci jàpp mu ko jàpp parce que sëñ bi moom ni mu jàppee président nëbbu ko kenn wax na ko ñëpp dégg nañ ko. Euh, kon liggéey bi nga xam ne bii moom moo ko farewoo muy liggéey euh, nekk ci boppu mboolem tarixe murit donc tasanteeg président nekk président république donc jàppante bi dafay lu am solo. kon euh, ay engagement yu am solo président joxe na ko fi liggéey bu am solo également ñu ngi ko fiy def depuis depuis bi mu fi nekkee ba léegi nii fii ci Touba te du loo xam ne sax dañ koy app dañ koy rek bu soxla yi ñëwee rek ñu def ci liñ ci loo xam ne lii euh, en tout cas mën nañ ko ba def loo xam ne peut-être na suñ jot en tout cas am am nañ ci mbégte lool. mu nekkoon kàddu yi Aliou Ngouye Ndiaye yi nga xam ne ñëwoon na ci àjjuma ji ci Touba Mbacké doon ziyaara sëriñ bi. mbokk yi jëneen jëwriñ joo xam ne ñëw na ci Touba moom moo di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum hydraulique di Serigne Mbaye Thiam mu ñëw nag doon seet si li nga xam ne moo jëm ci wàccaayu màggal gi li nga xam ne moo di forage yeeg la ci aajow fan lañ ci toll ak matuwaay yi nga xam ne moom lañu war a jël ngir ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi bañ a ñàkk ndox ci diirub màggal gi loolee sax leeral na ne euh, jot nañoo liggéey liggéey ba am solo ànd ceeg maaw rahmati ak ofor ak o ba jot nañoo réparé lu toll ci 97 fuite maanaam ay tuyaux yu tojoon ci dëkk bi waaye taxaw ci forage yi nga xam ne am na ñeneen ñett yu yees ci dëkk bi yoo xam ne taa bi liggéey nañ ko lépp rek ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu am dox waaye réseau bi nga xam ne yokk nañ ci 55 kilomètres mu jëm ci wàllum ndox mi ginnaaw bu mu nemmee ko liggéey boobu am na kàddu yoo xam ne Serigne Mbaye Thiam yëkkati na ko ñu ànd teewlu ko. ci mbirum ndox mi nag. foofu daaw jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko amoon du mu amee damaa waxoon gouverneur région euh, bu bu Diourbel ak directeur général lu OFOR ñu def benn daje boo xam ne bii dañuy xayma jafe-jafe yu ñu amoon ak fan la ñuy jëm ci màggalu euh, euh, ren ji loolu ñëw bu am solo la ndaxte ñi ko war seq yëpp seqoon nañ ko muy Euh, maire yi Touba muy autorité administrative yi muy Maaw Rahmati mi yore mbirum ndox mi fii ci Touba ak ñi ko wax sëgg yëpp ñu waxtaan d' accord ci benn programme boo xam ne bii moom la ñuy wax programme mu ndëgëndiku programme d' bu ñuy def programme d'urgence boobu nag gis nañ ne fi mu nekk nii ñu ngi koy doxal parce que dafa dafa ëmb ay forage yu bees yu ñu fi def euh, ñeenti forage yoo xam ne ñett yoo xam ne euh, yu bees def nañ ko ak benn boo xam ne bii dafa màggetoon yàqu ñu ñu defaraat ko ay ñaari ay château d'eau yu ñu fi defar château d'eau bu mag bii euh, nga xam ne moom dafa toog na lu fukki at doxul te euh, li muy jël ci ndox dafa bari ñu def ko ci loolu suñ ko defee mooy aussi am foo xam ne dañ fay denc ndox pour su fekkee ne ndox manqué na tuuti donc loolu biñ ko defee gis nañ ne Euh, aussi am na ay fuites yu fi am lu mat presque téeméeri fuite yu manqué ñett euh, gis nañ ko Sen'Eau ak Maaw Rahmati ak Ofor ñoom ñëpp lëkkaloo ci pour réparer fuite yooyu mu nekk loo xam ne lii tamit euh, dana yokk ndox mi daal ci ci ci dëkk bi. parce que normalement li nga xam ne moom la ñu am ci limu ndox muy million ñaar téeméer. ak euh, juróom-benn fukk juróom-benn fukki junni bërigo loolu la ñu am su ma ko waxee ci bërigo euh, loolu normalement doy na pour li nga xam ne mooy ñëw parce que soo jëlee million euh, ñaar téeméer ak juróom-benn fukki junni bërigo yooyu nga jàpp ne nit ku nekk bërigo bu nekk xëy na juróomi nit mën nañ cee jëfandikoo par bés muy vingt cinq litres à peu près en par jour par personne loolu soo ko defee lu ëpp normalement juróomi million nit mën nañ cee am ndox mais problème bi ñu am fii ci Touba mooy réseau bi réseau bi dafa xaw a dafa am ay fuite wax naa leen bi ñu commencé weer ak léegi lu mat téeméeri fuite yu manqué ñett réparé nañ ko fi loolu moom mooy indi jafe-jafe bi ak yenn saa yi sax ci biir kër yi ni ñuy defee réseau bi ci biir kër yi mooy am problème da ngay gis benn kër fii boo xam ne bi wàllu ndey joor gi am na ndox wàllu càmmoñ gi ñàkk am ndox xam nga loolu kon réseau bi nekk ci biir kër gi moo indi problème mbokk yi jeneen nemmeeku joo xam ne yeneen kilifa amal nañ ko fii ci Touba moom moo di Birame Faye mi nga xam ne moo jiite ASP yi di agence d'assistance et la sécurité de proximité moom it ànd ak nag délégation bu takku lool ñëwoon fii ci Touba doon ziare si Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu màggal gi doon waxtaan ak moom ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllum kaaraange ñoom it seen taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am waaye it ñi nga xam ne noonu la ñu taxawoo kilifa yi diine yi ak rawatina fii ci Touba Mbacké euh, ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi fi nekk saa su ne ñoom ASP yi ñu leen taxaw ci seenu kaaraange ñu ànd teewlu kàddu yu Birame Faye fay bu mu gisee ak sëriñ bi. ñu yëkkati mun naa ñaari mbir la bi jiitu bi jiitu maanaam décret bi sas ASP bi ko sàcc moom moo ñu sëf moo ñu imposé ñu recruter former jox way takk der yi ngir renforcer dispositif sécurité sécuritaire bi nekk Sénégal. décret boobu aussi moo ñu imposer ñu recruter former déployer ci administration yëpp ay ASP këri dina itam bokk ci donc conformément à ce am nañ juróomi téeméeru ASP ci këru diine yëpp Popenguine ci la bokk Touba ci la bokk Tivaouane ci la bokk Kérémat ci la bokk donc ñun dañu am relation partenariat ak këru diine yi donc rafetoon nañu teew fi tey jéem a xayma ah déggoo boobu nga xam ni moom la ñu seq ak këru diine yi comme ni ma ko waxee am nañ ñaari téeméeru ndaw ci département Mbacké am nañ juróom fukki ndaw yoo xam ne dañ leen mobiliser ñuy liggéey ak trésor ak mairie ngir wàllu taxi daaw def nañ lu ëpp vingt cinq million en recette ren aussi ñaax nañ leen pour ñu wésu ko bu loolu passé aussi maanaam kuréel yi nekk Touba yëpp ak këru kilifa diine yëpp am nañ fay ASP fii ñu nekk résidence bi ci la bokk daaray Kaamil ci la bokk jumaa ji ci la bokk arme Baqiya ci la bokk kër sëñ Mbass Abdou Khadir ci la bokk ak yeneen kër daaru minam ci la bokk sëy day baag may euh, euh, yokk ay xalaat donc bu loolu weesoo donc encore une fois li jiitu ci ñu fi indi mooy xayma déggoo boobu nga xam ne am nañ ko ak Touba beneen bi nag dañu ñëw en tant que en tant que en tant ndaw en tant que talibé ziar sëriñ bi ndax loolu avant ay ndombo tànk dañ ko daan def mu yàlla dénk ay ndombo tànk dañ koy def bu fi ndomba tànk yi jógee dañuy wéy di dooni jullit dooni taalibe donc loolu mooy ñaareelu mbir bi nga xam moo tax ñu teew fii. mu nekkoon kàddu yu biram Faye mi nga xam ne moo jiite ASP yi fii ci Sénégal mbokk yi ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany di jiitu euh, groupe bi nga xam ne moo di des médias moom it ñëwoon ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou doon ko ziare ni ko yeneen kilifa yi di defee moom nag bi muy ñëw indaale na lu toll ci vingt cinq mille maanaam ñaar fukki junni masques ak juróom. yoo xam ne jébbal na ko sëriñ bi ngir jàppale eh, ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi fi ñëw di màggal si ci li nga xam ne moom moo eh, xeexum jàngoro ji nga xam ne moom moo di coronavirus waaye ginnaaw bi mu génnee ci ziar boobu mu doon amal ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati ne ay kàddu di rafetluwaat taxawaayub sëriñ bi jëmee ci mbas mi waaye dogal bi nga xam ne jël na ko ngir ñu célébrer màggal Touba nga xam ne daanaka lu ëpp 250 milliards dana ko dugal euh, ci koom-koom yi réew mi te loolu bokk na ci li nga xam ne day tàmbaliwaat ngir suqali koom-koomu Sénégal ginnaaw bu mu nërmeeloo ci li nga xam ne moo di Covid 19 bi ñu ànd teewlu kàddu yi Bougane Gueye Dany. yëpp di leen wax ne dama ñëwoon tey comme ni ko taalibe yëpp di ñaane comme ni ko taalibe yëpp di defee ñëw euh, tàllal suma loxo euh, suñu yaakaar ki fi toogal Serigne Touba Khadimou Rassoul mu di Cheikh Mountakha. ma xamal ko it ne euh, bëgg nañu ci liggéey bi mu def bëgg nañu ci ni mu tay téye réew mi bëgg nañu ci ni mu nu taawoo euh, ku ne xam ne ne dañu nekk ci période Covid 19 euh, ñu jël ñaar fukki yi masque ak juróom jébbal ko sëriñ bi ngir ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir màggalu Touba ren waaw euh, mais am na tuuti loo bind loo bind gëñ nga bind gëñ nga bind tey gëñ nga bind tey waaye li nga bind ci sëriñ bi tey dana bëggoon nga kenn ki ñaari ñaari jukki rek li ma bind li ma li ma bind tey jërëjëf li ma bind tey ci sëriñ Mountakha ma ne euh, euh, c'est le visage de la résilience et de la relance économique dañu toll ci jamono joo xam ne ñu ngi wax waxu relance économique ma ne bu ñuy wax dë waxtaanee rek dëgg ki relancer économie Sénégal tey ki nga xam ne bi nit ñi toog di xeltu moom mu ngi ci action mooy Serigne Mountakha ndax Serigne Mountakha euh, bi nit ñi di xool ban yoon la ñu war a jaar bi nit ñi jàqee ci Covid 19 dafa jóg le 7 septembre mu ne Magal Touba danañ ko organiser màggal Touba ku ne xam na ne ñaari téeméeri milliards ak juróom ñoo ciy génn 250 ñaari téeméer ak juróom fukk ci milliards. moom lay générer màggal bu nekk kon loolu déjà départ la ci économie bu nërmeelu woon moom xam na ne njabootam li ci ëpp ci informel bi la ñu nekk président ci waxtaanam dafa wax ne 98 pour cent de notre économie repose sur l'informel ma dellu ci mbind mi ne ko Serigne moom moomu xam na ne 98 pour cent ci informel bi ci njabootam la ñu bokk kon moo tax bu ñuy wax waxi relance économique moom faw ñu jàpp ne moom moo ko sooxe. mbokki téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké ci wàccaayu màggal gi ngeen koy am ci seen télévision Lamp Fall TV santaat leen bu baax a baax gërëm leen sant suñu cadreur di Chérif Gueye dig leen daje incha allah ci yeneen i xibaar yu bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké jërë ngeen jëf.